Sénégal na ngeen bitim réew na ngeen abonné KBN na sikkal abonné daaru maam Omar da liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, mbokk yi ñuy déglu ci biir réew mi ak bitim réew mi ñu ngi leen di yu baax leen siyaara eh, di am mbégte ak kontaante ci delsiwaat gi ñu delsiwaat pour di waxtaanee Mawlana Seydi Hadji Malick Ndao lenn ci jaar-jaaram Seydi Hadji Malick Ndao radiyallaahu mooy wali yu mag wi nga xam ne moom lañu yàlla booleet te nit ku ne kala yàlla booleel sedd la ko danga koy xam danga koy fonk nga xam ko kii fan la ko yàlla jaarale ba melal ko nii mu mel ba àdduna yëpp topp ko tey loolu lañ ci jublu pour di ko waxtaanee ñëpp di ko xam liñ ci gëstu ni yëpp nag moom ci làmmiñam la génnee walla mu génne ci làmmiñu njabootam wala si ay taalibeem yu ko jege woon te dund ak moom kon liñ ciy wax yépp lu wér la waxeewuñ bakkan waxewuñ bànneex wala di wax pour nit yéem ñi dañuy wax li yàlla dogal ci moom te mu doon dogal boo xam ne bëriwul ci ñu mu ko dogal may gi ko yàlla may saayaral ko ba ñëpp mën koy xam loolu la ñuy waxtaanee. te borom xam-xam yëpp dañuy wax ne xam-xam nettali moo sa gën a doxoot kon ñun suñ xam-xam bii xam-xamam nettali la du luñ fekkee si Sidaaj ma ndaw radiyallaahu anhu eh, mu ngi gane àddina dëkk bu ñuy wax Ndaama 1901 ci la feeñ jamaano soo ma doon laaj kan mooy way juróomu góor dama lay wax mu ngi tudd Aliyu Daawa Ndaw Aliyu Daawa Ndaw daawa toog. mooy way juróomu jigéen daawa toob moo jur xale yu daaw xale yu daaw xantu njéemé moo ko jur xantu njéeme xal sàmba baasin moo ko jur xal sàmm baasin tàggu njaxana moo ko jur tàggu njaxana moom nag ñun fi la ñuy yem ndax Mawlaana si daaji ndaw su daan waxtaanee ay maama baax ko si tàggu njaxana foofu la daan xem du ko nangoo romb te daana ter itam géwél yi bu ñu ñëwoon gàmmu di ko wéy ku ko bëgg romb mën la daana ndax tàggu njaxana rek kat dafa am histoire bu xéeme bu ci Sidaaj ma ndaw doon nettali Sidaaj ma ndaw mas naa toog mi ne ndawen taalib yi wër ko mu ne tekk ba ci kanam mu ne sama mbir mi xaw ma fu mu bayee ñu ne tekk mu ne bëlla ba ci ndugumaan ak séeréel ba rayaane siin dajee ci benn jotaay boo xam ne benn dëkk boo xam ne mosuñ fay dem làkk wa ñuy wax bokkut ak waa dëkk ba làkk wu ñuy wax yàlla génnee si seen diggante xalifa rasulullaay kooku mu ngi bokk ci yi gën a xéeme waaw nee na loolu li gën a xéeme ci kaw suuf mooy loolu ndax kat tàgguñ xam ne mii ñuy waxtaanee ku xéemu woon la da daan soppeeku gaynde waaw tàgguñ xam ne da daan soppeeku gaynde walla mu soppeeku leneen. ku bari woon gàllaaj la te nekkutoon ci diin islaam day de nekkutoon ci diin islaam ku amewoon may la ci mbiram euh, xarga foofu li tax ñu ne daal na soppeeku gaynde moom moo ko nettali nee na dëkk bi yëpp dañ ko daan wax waaye kenn ñi mu koy fisal ci kaw ndax ñëpp ko ragal dañuy wax ne boo ko kontaan looyee ba mu kontaan mu soppeeku gaynde yàlla dogal bi mu demee ba gën a du mag moom tàggu ñu xanaa mu takk ab séet xale bu ndaw di ko ganale boobu nag ñoom seen jaay léegi li doon dund boo takkee séet da nga ko ganale juróom-ñaari fan bët bu set nga rey nag su juróom-ñaari fan yi matee séet bi si boppam daan la ganale fukk ñetti fan muy fukki fan moom bët bu set mu rey bay wu jigéen def ko ñeer jox jëkkëram ndaw si nag gannaaw moom biñ koy may góor gi daw dégg yooyu mu bëgg ci lu leer ba mu ñëwee góor gi ganale ko muy tàggu ñax na ba juróom-ñaari fan yi mat moom itam mu commencé ko ganale bis bu njëkk mu rey béy bu mag béy buñ ko rayaan duñ ko toj dañ koy fees noonu rek dagg cër yi def ko ñeex diw gi ne ci kaw euh, seet bi bi mu ko toggee ba mu paree mu yàgg ko ci benn boole dugal ko ci benn néegu xat néegu xat mooy néeg boo xam ne dañ ko sàkket mu wër rek soo nee si biir di sax mën ngay gis li si biir. góor gi bi mu bayee ko ca pénc ma ñëw ubbi néeg bi rek gis booli baa ngi fees ak yàpp xol bi sedd lool mu fudd yaram wi rek daal di nekk gaynde geen ga de feeñ ci bunt néeg fekk seet baa ngi làqutu ci gannaaw sàkket wi di ko yóndu góor gi di xab di xab ñeex mi di xab ñeex mi ba xol bi féex bi mu siggee bët yi rek jàkkaarloog sedd baa ngi koy xool mu xam ne seet bi gis na ko waxut ko dara mu soppeeku at nit génn ndaw si nag commencé nag di ko wax waa kër gi naa leen li ngeen doon dégg dëgg la maa ci teg sama bët ba yëf yi commencé siiw góor gi bëggul yëf yi génn kër gi benn bés mu ne ko na nga ñëw gungee ma ci àll bi ma fudd sama tànk yi bi ñu demee ba génn dëkk bi rek góor gi soppeeku at gaynde rek fàdd ko pour bu histoire bi génn xam nga maam ju mel noonu dañuy jàpp ne ku béyee ko si moom rek dootoo jub yàlla dogal yow nga génnee ci moom say maam jaar si moom ndax nee la xaalis daaw la xantuñ yéeme xaalis sàmba baa seen tàggu ñaxan kon soriwul ko lool. yow nga ñëw nekk xalifa rasul lay gën a nekk ki gën a jub si jullit ñi nekk seen imaam kon loolu lu yéeme la kon ñii ñooy ay maamam moom Mawlana Seydi El Hadji Mandaw radiyallaahu anhu ci wàll baayam baayam Ali Daawo nan la ñëwee ndaama eh, yàlla ci kàttanam ak sañ dafa xëy rek tàggat ndaw si te mooy eh, daawa toog pour mu rañaan ah walla pour mu gàddaay génn tundu ndukumaan ndax moom ndukumaan la dëkk dëkk bii la dëkk nag man du duma ko wax ndax séddaaj man ndaw mi nga xam ne li ñuy wax ne ci moom moo ko nettali seen wayjur mu nekk leen ko mas wax ne dëkk bii la béyee ko kon ñun foofu rek la ñuy am nee daal Ndoukoumane la béyee ko ci biir Ndoukoumane boo doomam ju góor ñuy wax xaali daaw fa fer bees rek gàddaayee fa di xend di fanaanal di xend di fanaanal beeg si ndaama ndaama dëkk la boo xam ne mu ci kanam Daaru Salaam kon ndaw si yàlla musal na ko ndax bul fàtte ne jamono jooju ay tubaab ñoo ëllëg Sénégal tout euh, te nañ booba ndaw soo xam ne yaa ngi dox te àndoog sa borom kër dañ la jàpp def la jaam jaay la mais kii moom doomam ju góor rek boot di wër di xendu di fanaanal ay fan ba egg si ndaama bi mu si dëkk bi jaarewul kër kenn daqamul fi kenn parce que gis nit ñi séeréer la daan làkk waaye dafa dem ca teen ba am na garab gu fa ne fóotkat yi daan fa fóotee fa la dem lal malaanam toog fa ba gudd jot mu fas yéene fanaan fa bi guddi jotee boroom borom dëkkam ndaama ci jamono jooju mu ngi tuddoon Samba Ndiaye sàmm Ndiaye moo ñëw nuyu ko jàmmalante ak moom ndax Samba Ndiaye xawoon na dégg séeréer ndax mag ñi dañ déggoon làkk yu bari waxtaan ak moom ne ko fii dooy fanaan dañ dem sama kër biñ ñëwee ci kër gi mu jox ko néeg moom mm, moom daawato indi ko ci kër gi jox ko néeg mu nekk fa ak doomam ju ndaw muy xaale daaw mii nga xam ne mooy bàyyi séeréer ñu ndaw kon kooku noonu la ñëwee biir ndaama. borom dëkkam ndaame bi dalal ko jox ku néeg ay at lañ ci teg wala ay weer mujj def ko soxna kon Mame Alé daaw ñëw na fi ànd ak yaayam xamuñ gisuñ ay baayam xamuñ dëkk mu bayee ko yaayam rek lañ ko gisat mais yaayam ñëw na fi jox nañ ko néeg takk nañ ko fi soxna ba Mame Alé amoon na rakk ju jigéen joo xam ne eh, bi mu deyee ndaw la gaañu kon loolu mooy wàllu bàyyi si daaj ma ndaw radiyallahu taala ci wàlla baayam loolu